asalaamaaleykum mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar leen di wax képp kuy gan ci page bi di abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy gis wé leen di liker di commenter di partager c'est très important. mbokk internet yi tay dañuy ñëw wax ci eh, prestation bi Ismail Jacobs ci suñ ñaari match yi passé muy contre pays ba mu def entrée en jeu également eh, suñu match contre. Eh, Qatar mu def euh, mu comme titulaire donc mu def une prestation extraordinaire rien à dire aujourd'hui ci loolu lañ fas ñëw wax euh, ndax place boobu noonu muy latéral gauche bi actuellement moom moo ko moom wala déet je pense que loolu moom amatul je pense que moom moo mais laata ñëw di ko yaatal day dem ci page publicitaire bi da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas kon nag bul xaddi benn yoon ndax fa xam-xam ne woon ba tey jugu fa dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate di boroom xam-xam bu mag ci wàllu lasraar liste xaar bu leer wax la sa passé ak sa tolluwaay ba nga teg sa bët loolu moom ñëpp mànkoo nañ ñi amu ci morom ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy ak ñi tukki bitim réew te ay këyit jafe leen lool daw leen seeti sëriñ Mohamed Jaxate seen aajo yëpp faju ngir jokkoo ak moom wootal ci numéro téléphone bi 77 334 83

gis euh, qualité yi nekk ci moom. ba aujourd'hui muy jouer ci équipe nationale bu Sénégal aujourd'hui Ismaël Jakobs keroog bi ma ko gisee mu dugg suñ premier match contre Pays-Bas loolu mu jot a wane rek daf ma doy parce que en terme d'agressivité, en terme d'engagement en terme euh, euh, d' abnégation dafa wane lu bari aujourd'hui suñu deuxième match mu doon comme titulaire ci côté gauche bi côté gauche bi nga xamante ne amoon nañ incertitude yu bari heureusement que sax bo fédération bi gawé régler problème yi mu amoon à temps muy problème administratif yi mu nga xamante amone nako euh, nationalité allemande bi mu amone et tout ça wa fédération bi def liggéey bu am solo gaw daat koy régler donc euh, parce que côté gauche bi amone nañ ci ay problème yu bari euh, blessure bu Fodé Ballo-Touré ak Moussa Ndiaye bi nga xam après woo ko en renfort boobu fek suñ première match fekk ñëwagul amugul préparation bu baax donc mom mu ñew tay ji ñu régler loolu tey ji mu ñëw jouer euh, suñ deuxième match comme titulaire contre Qatar vraiment contre Qatar Ismaël Diakos a fait une match extraordinaire. ndax offensivement gis nañ li défensivement également gis nañ bi moom bu ma koy seetaan damay gis que ni kii nii dafa bëgg dafa bëgg maillot bi dafa bëgg équipe nationale bu Sénégal ñu ngi koy dégg moom mënul sax euh, wax français déggul sax li nga xamante ne euh, mooy wolof déggul français euh, anglais ak allemand lay wax mais dafa ñëw rek daal di intégré wu ci groupe bi c'est des genres de joueurs yooyu qu'on a besoin joueurs yi mel noonu ay patriotes yooyu genre yooyu nga xam ne dañuy ñëw mooy le maillot ñooñu la ñu soxla c'est un guerrier bu ma ko gisee damay xam ne kii guerrier la personnalité bi mi dégager ci terrain bi caractère bi nekk ci moom donc man vraiment vraiment man dal na sama xel euh, euh, performance yi mu def euh, yu intéressant satisfaire na ma te yaakaar naa war naa satisfaire course bi léegi nag li ci des mooy que je pense que poste boobu noonu vraiment jël na ko euh, Fodé de Touré lañ doon wax mais Fodé de Touré blessure bi mu fi am ci diggante bi vraiment Ismaël Jacobs pourvu na lu tax ñu war mu war a taxaw ci euh, latéral gauche bi parce que il a prouvé que ni euh, am naa ay qualité prouvé na coach bi wax que ne que am naa ay potentiel yi nekk ci man donc je pense que ni bokk na ci joueurs yi nga xamante ne ñoo ëpp li ñu vitesse bi ñu daw ci coupe du monde je pense que 35 km heure la flashé kon loolu rek day tax. day wane que ne joueur bi eh, eh, am na am na am na ay qualité qualité yu bari yu nekk ci moom léegi eh, suñu jongante contre comment dirais contre Équateur je pense que moom mooy nekk ti titulaire loolu moom leer na naañ place boobu moom jël na ko te jàpp naa que ne bu ko Aliou Cissé tegee dañuy am problème yu baree bëri et gis nañ coupé arrêté yi muy dóor keroog def na passe décisive ñu gis gis nañ passe décisive bi mu def ci Famara Diédhiou donc euh, kii mi jël initiative bi muy jël di dóor coupé arrêté rek loolu rek dafa doy parce que bi mu ñëwee yàggul te jëlee initiative am di dóor corner di dóor ko yi donc loolu tamit c'est bon kon li ci des nag mooy ñu protéger ko parce que am na euh, carton carton benn carton zone deuxième match bi ñu jëm bu amaatee carton zone mooy loolu suñu match bu fekkee fekk nañu jën huitième de finale te loolu la ñaan. du nar a football kon yàlla nañ ko protéger ba du ba du jëlaat carton zone également du blessé. kon nag mbokk yi loolu lañ ci amoon liñ ciy wax euh, di leen wax ba beneen yoon ci suñu yeneen vidéo jaa